arbitre bi ngi waaj a sifflé troisième de la soirée Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh moo la féete ginnaaw ngembo ngemb lu ñuul nekk écurie Boy Pikine Boy Niang ah Doudou ah, top 5 mu ngi nekk écurie Doudou Bakar Sarr ndeysaan moo la moom ngeen jàkkaarlool moom top 5 Ngor Niakh moo la woon ginnaaw lii nag bëre dóor la ñoom ñaar ñëpp ay mbër la ñoo xamante ne ay mbëru simple lañ. Ngor Ñaax ndeysaan Ngor Ñaax Ngor Ñaax top 5 Ngor Ñaax top 5 ñu ngi demee wet ñoom ñaar Ngor Ñaax top 5 moment bi Ngor Ñaax di bëre ak top 5 ci la Cobra di tuus ah wala nañ koo xoolaat ndax bëggoon nañoo am tuusu grand combat bi Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh top 5 ndeysaan Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh a ngi déplacé wu bi nee na laale leen arbitre bi nee na laale leen bi nee na laale leen Ngor Ñaax ak Top 5 Ngor Ñaax Top 5 Ngor Ñaax moo la woon Top 5 moom ngeen jàkkaarloo arbitre bi àtte na leen da ngeen a war a bëre waaw waaw da ngeen a war a bëre da ngeen laale. da a war laale. waaw waaw. arbitre bi sifflé waat na. ndeysaan Ngor Niakh top 5. Ngor Niakh moo la woon ginnaaw ngeen lu ñuul li top 5. moom ngeen jàkkaar lool. ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan xale yaa ngi noonu dara xewagul ba tey ci ngóor ñaax Top 5 cokkaas na ngóor ñaax déplacé na tànk bi daa mel ni tànk bi mu teg pour bëree mënu koo xeexee moom Ngor Ñaax changé na pied Ngor Ñaax na pied avertissement Ngor Ñaax avertissement top ay ca laale leen ay ca laale leen laale baaxu góor la ngóor ñaax top 5 ngóor ñaax top 5 jogoma père Ibrahima Mbaye ci fa xuufa yi ay butéel la yor ak Ibra ngóor ñaax top 5 dara xewagul Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh top 5 Ngor Niakh top 5 lan moo nar a xew Ngor Niakh top Ngor Niakh top 5. top 5 dóor na. daw jëli ko. daw na jëli ko. Ngor takk na ko. Ngor takk na ko. top 5 bañ na ah top 5 mi mbër la ah. top 5 mbër la ah. ndaanaan la ma ngay xeex. ma ngay dóor. top 5 dóor na ko. dóor na ko mbaa du ko dóor mu daanu. top 5 dafa wex Ngor daan na ko. top 5 dóor na daan na. top 5. Ngor Niakh daan na top 5. Ngor Ñaax daan na top 5 Ngor Ñaax daan na top 5 daan na ko jël bu rëy